promo spécial Magal Touba 2021 ak groupe bi ñuy wax maanaam farm ñii ñoo xam poulet de chair tudd ci yëngu di jaay nag ay poulet de chair yu baax yu teg lool yi ngeen doon am maanaam farm ne nag Magal Touba 2021 bernde yi duñ ci des ginnaaw benn yoon ak seen ay poulet de chair yu baax ah mbokk yi lii nag promotion Magal Touba la ay poulet de chair yu baax gaaw leen balaa muy jeex rëy nañu am nañu poids à partir de 2500 francs li njëggu xéewale goo xam ne ne dañ leen ko jagleel maanaam ferme rek a mën lii promotion bi nag dina tàmbali à partir de jeudi 23 septembre am nañu point de vente ci Touba Jannatu Mahwa ak itam xayra ci yoonu Mbàkke wi ak ci rond point bu ndindi ngir bépp leeral gaaw leen gaaw promotion bu mel nii nag gëñ na fi am lu ngeen bëgg ci ginaar rek mën nañ leen koo livrer ak fu ngeen mën di nekk ci dëkk bu sell bii di Touba 77 460 instant dina gën a neex ak groupement na femme sërin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar